ce sera une mission très émotionnelle très émotionnelle depuis le début daanaka damay laxaru sax di joy quoi parce que en modeste personne may xool ni yonentu toll man man mu ñàkk solo mi yàlla def ma def yonent ça m'a toujours fait pleurer quoi loolu rek la quoi. incha allah ñu lay jaajëfal bu baax.